mi nga xam ne moo jiite woon ndaje ma nee na il faut ñu xoolaat comportement yi maanaam doxalin yi waaye tamit ñi nga xam ne ñooy chauffeur yi li nga xam ne moom la ñuy daw excès de vitesse yi loolee tamit danañu ko càmbara jël ci ay matukaay waaye tamit ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo drogue wala alcool ba pare dawal oto loolee tamit lu mën a ñàkk la moom premier ministre Amadou Ba ci yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na accident yi bi ñu ko xaymaa at jot lu toll ci 700 morts maanaam juróom-ñaari téeméer ñoo xam ne ñoo ci faatu at mu jot li nga xam ne moom la ñuy ñàkk ay matériel lépp bi ñu ko xaymaa toll na ci 160 état bu Sénégal journal bi nee na dañu koo sëf si miir bi Assane Samb xëy jël xalima ma nee na dogal yi nga xamante ni gouvernement bu Sénégal jël na ko ay dogal la yoo xam ne dañu ko war a respecté maanaam dem ba sa ci pandaw ga waaye nag li nga xam ne moom la ñu nemmee ko ci Sénégal dañuy jël ay dogal yoo xam ne bu ñu pare nag fële la koy teg yërekaay gi de Libération nee na bus bi nga xam ne pneu bi dafa toj mu fekkee beneen bus bi bus boobee nag amul assurance assurance am jeexoon na bu yàgg-yàgg ñi nga xam ne nag ñoo moom ñaari bus yi nga xam ne ñoo def accident yi tey ji nag convoqué nañ leen journal bi nee na am na lu toll ci fukk juróomi néew yoo xam ne ba léegi gisuñu seen mbokk yéen a kaay gi de la quotidien yor yora nee na Mansour Faye ji ndax jotul sëkk ñu daal di koy dàq maanaam Mansour Faye mi nga xam ne moo lañ dénk wàllum transport est-ce que jotul ñu dàq ko ak lan la Macky di xaar loolee ci la journal bi le quotidien yor yor xëya yéen kaay gi nag nee na Mansour Faye mi ji nga xam ne moo nekkoon ministre bi ñu dénk wàllum ndox mi maanaam wàllum hydraulique moom Mansour Faye moo signé woon contrat bi jëm ci diggante Sénégal ak Sen'Eau gis nañ ndox mi jamono ji ci Sénégal ni mu demee moom Mansour Faye jamono ji mu nekk ministre développement communautaire ak kebbee coronavirus beek ak fond covid 19 yeeg rapport cour des comptes bi loolee lépp nag boo si toftalee accident bu métti bi nga xam ne am na te moom Mansour Faye mu nekk ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum transport jotoon nañu daal koy dàq yéen kaay gi nag nee na ku mu am ndey ak ku mu amul ndey la ñu gis ci mbir mi ndax Abdoulaye Diouf Sarr mi fi nekkoon ministre quatre heures ak xëy di ko dëgg la nee na dàquk lan lañ ciy xaar yéen a kay gi di bés bi nee na accident yu métti yi am ci kaw tali bi na leen bi bi am ci yoon yi maanaam ger gi mel ni tulleeg ak anam bi nga xam ne moom la ñuy joxee permis yi loolu lépp bokk na ci li ko waral te war nañu koo saytu yéen kay gi di ko di cee ñu xëy fekk fa góoru xuma mi nga xam ne mooy secrétaire général union des routiers du Sénégal ñoo chauffeur si nee na chauffeur yëpp bu ñu Fall nee na état bu Sénégal mooy responsable ndax góor a xuma xëy na samp ab laaj nee na askanu Sénégal yéen laay laaj permis yi kan moo koy joxe nee na ñu ko état bu Sénégal moo koy joxe te nag moom góor a xuma nee na guerre bi am ci ñi ñuy joxe permis yi ñëpp ñoo si teg seen bët ndax fii ci Sénégal boo amee xaalis am permis soo amul xaalis doo am permis te état bu Sénégal mooy joxe permis yi moom góor a xuma xëy sampaat ab laaj nee na visite technique yi kan moo koy joxe ñu ne ko état bu Sénégal moo koy joxe góor a xuma ne li nga xam ne moo am ci visite technique yi ñëpp ko gis waaye tamit moom góor xuma samp na laaj nee na bi kan moo koy gérer ñu ne ko état bu Sénégal moo koy gérer moom góor xuma nee na lu jëm ci wàllum assurance kan moo koy gérer ñu ne ko état bu moo koy gérer moom góor xuma nee na da ngay gis ko xam ne oto bi mu yor maanaam quarante cinq places la waaye nag assurance bi nga xam ne moom la ñu koy jox soixante personnes moo si nekk te loolee jaaduwu la moom góor xuma àndul benn yoon tere bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal ko tere ñi xam ne ñooy def transport ci guddi gi nee na loolee àndu li mu ànd mooy ñu yoon yi xoolaat mbir yëpp nga sa def ni njombe ñu joxar bi la baaraamu tuuma def nag ay yoon yoo xam ne deux fois deux fois yéene kaay gi di 24 heures nee na accident bi am ca diwaanu Kaffrine Touba génne ñu lu toll ci 40 millions ba pare santaane ñu jàngum alxuraana bu dee nag ñi nga xam ne ñooy waa Tiwaawan ñoom nag yedd nañu askanu Sénégal wax a gouvernement bu Sénégal wax leen ñu jël ay mesures Cheikh Kanté journal bi nee na respecté wul li nga xam ne mooy déy national ndax Cheikh Kanté bu APR bi jamono ji nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi si dëcc moom ma nga woon ca diwaanu Kër Masara di fa gundaandaat di fa jaayum carte xumbaay mbumbaay rumbaay ci jamono joo xam ne askanu Sénégal ñoo ngi ci dëcc yéenekaay gi de la témoin xëy di ñu xibaar naan ñu gouvernement bu Sénégal ci atum 2017 jëloon nañu fi fukki commandement atum 2023 bi tamit jël nañ fi lu toll ci ñaar fukk ak ñaar ci ay mesures yu yees état bi nag jamono ji ñoom dañuy tere lu jëm ci wàllum pneu yi nga xam ne dañu koy importer maanaam pneu occasion yi loolee gouvernement bi nee na dañu koy tere def transport guddi dañu koy tere versailles yi nga xam ne moom la ñu dugal ci oto yi dañu koy tere porte bagage yi dañu koy tere xamante ni ëppale nañ dix ans oto yooyee tamit dañu koy tere ñu def transport yéene kaay gi di alerte bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci yokk gi mel ni tulleeg maa la ci réew mi ndax ginnaaw essence beek gasoil beek électricité bi nga xam ne yokk na loole doy na war te nag bëri na loo xam ne askan wi dañu koy jëfandikoo di ko lekk dafa yokk ba maara day taali gouvernement bu Amadou Ba bii ñoom nag dañoo waxoon ne gouvernement de combat la waaye nag jamono ji li ñu gis maanaam dañuy xeex askan wi ndax dañoo gën a jël askanu Sénégal yokku leen ak tumuranke yéene kaay gi de la Réveil chauffeurs yi ñoom ginnaaw bi ñu yokk essence bi gasoil bi nee nañu dinañu yokk paas yi yéen kaay gi di libération xëy yóbbu ñu diwaanu Mbuur nee na Moussa Diop ak Moustapha Diop ñaar ñi nga xam ne dañu leen a tuumal ne ñoo faat jigéen gii nga xam ne ak franco sénégalaise la di Anne Marie Rosalie Ngom ñaar ñi nag li ñu leen di toppee lu jëm ci wàllum sàcc association de malfaiteurs lëngoo di def ay ñaawteef ak assassinat journal bi nee na ñaari xale yi nag yàgg nañoo sàcc ay moto di ko jaay ay nit am na ci koo xam ne yàgg nañu ko jaay maanaam receleur Ndour am na beneen receleur bu dëkk Dakar boo xam ne gars yi ñoo wër yéen a kaay gi dalee Zeko nee na procureur bu Sénégal dossier Ousmane Sonko Adji Sarr ak ñoom day Khady Ndiaye bi nee na nañu ko jël yóbbu ko jugement maanaam nañu ko yóbbu tribunal waaye nag kàddu gu mu jigee doyen des juges moo ko war a jël yéen a kaay gi sunu lamb xëy duñu xibaar nan ñu combat boo xam ne ñoom ñaar ñëpp am nañu confiance waaye nag bëri na ay piège maanaam ay ndëgg sërëx waaye risque bi am ci combat bi tamit bëri na lool société